salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokku téléspectateur wala internaute MPROD TV dañu amaat mbégte ak bànneex bu yaatu yaatu comme ni ñu koy amalee at bu nekk ren nag ñu ñëw fii nga xam ne moom mooy ziara Thierno Djibril Ousmane Ba yemoo ko 31e édition ren nag ñu koy amalee comme ni ñu koy defee at bu nekk rek. voilà ginnaaw corona bi jaar na ci ci atum 2019 ak 2020 ñu ajoon li nga xam ne moom mooy jàng yi nit yi namoon ko ñu gis ne yi ñu ngi bàyyeekoo fu nekk ci Sénégal fu nekk ci àdduna fu nekk ci euh, bitim réew donc pour ngir rek euh, teewee li nga xam ne moom mooy bi lay 31e euh, édition wu ziare Thierno Djibi Ousmane Ba donc nag pour ngeen bañ a manqué dara ci li nga xam ne moom mooy bi lay ziar damay ànd ak sama caméraman rek Boubacar Diawo comme ça ñu dugg ci kër yi di laajte pèlerin yi nan lañ yëgee li nga xam ne moom mooy 30 31 bi ñu dugg waxtaan ak kilifa diine yeeg bépp boo xam ne ñëw na fi daal ñu laaj leen euh, duñ leen bàyyil dara dinañ dem si wàññi dinañ dem euh, si pèlerin yi jàkkaarloo ñoom waxtaan ñoom ci li nga xam ne moom mooy bi la des Boubacar euh, damay ànd sama cameraman rek mu topp ma léegi léegi ñu àndee dem xool li nga xam ne moom la gars yi nekkee si wàññi yeeg yu ni mel بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ah nu يلا yàlla bi Thierno Amadou tàmbale ci Amadou ba ci Thierno Malick ak lépp lu Thierno Jibril di wuy juram moom Thierno Boubacar mii ànd ak yow àndin wu rafet xool ci ñoom Thierno Jibril amu ci benn kenn ci njabootu Thierno Jibril loolu rek mi ngi lay xool bëtu Thierno Jibril. waaw ah, sama doom yéeg-yéeg yi moo di ni wuute yëpp ci na ñaanam ci la jóge tey gam ziar bi foo toll ci waxuma la fii Sénégal waaye bitim réew sax dañ koy waxtaan bitim réew sax dañuy participer bitim réew dañuy ñëw kon li yokkute Bambilor la ñun dañoo yëg ne Bambilor yokku na ba nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ñaanal yàlla rek di ko jóg jokk ñaanal yàlla ndax lépp moom la baax lépp moom la muy yëg daal moo di ne ziar bi at mu nekk day yokk ni mu yokkoo nag li la bambiloo du yokkoo kon dañuy ñaan sant yàlla di julli ci Muhammad na ma ko waxee woon di wax ne dëgg-dëgg kontaan nañu ndaxte fa tabarakallahu nitu yàlla bu tedd bi Cerno Jibi radiyallahu taala anhu ñaan bi mu ñaanoon fa tabarakallahu at bu jot ñu gën a gis yokkute ñaan bi ñu gën a gis nangu ñaan ga ñu gën a gis wax dëgg yàlla nit ñi jullit yi catholique yi dëkkandoo yi andi jàmm yi taalibe yi fu nekk la ñuy bàyyeekoo ci Sénégal ak bitim réew ñëw ngir sijaar bu tedd bii loolu nag fa tabarakallahu te lu ko lal mooy diine lu ko lal mooy alxuraan lu ko lal mooy yàlla suñu borom lu ko lal mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp sunna la kon yàlla na yàlla nangul ñu nangul mboolem jullit di kontaan si ziar bi nga xamante ne ni suñu papa Thierno ji bi moo ko defoon ak suñu bàyyi démb dara ñaawul Thierno Amadou ñëw ak Thierno Malick ñoom na Ousmane ñoom ñëpp ñoo jaar si seen tànk macha allah macha allah ñuy ñaan yal na yàlla dañu koy def di ko def di ko def di ko def ba mboole mu jullit ñëpp a fekke kenn bañ a manqué yàlla defal ñu teraanga sutura àdduna alaaxira àllaaxira lépp liñ fi ñaan yàlla yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu lépp lu fi indi tawat mba jàngoro mbaa jaaxle yal na ko yàlla faj lépp luy xéewal yal na ko yàlla ful ba àdduna yëpp yëpp yëpp jot ci lii cosaan la ci ñun waaw ñun tamit yàlla dañ ci boole chaque année ñu diko fekke diko di ko tee di fekk nag suñuy mbokk yu ñu laye biir yu ñu bëgg yu baax mention spéciale suñu mag ju baax du jigen lañ fi fekk muy um kayta yàqu fi dara suñu mag nak difi sey muy jaari mok jeena ba ñu ngi leen di sante sen di leen laacc sen jamm ak sen jamm yaram ak sen waccu wàccuwaay yalla nañu yalla defal ñu am ay at at di ko fekkee yàlla may ñu gudd fan ak wergu yaram ak katan gi ñuy mëna a fi at bu ne ak kontaan rek sant yàlla bu baakha baax ndax aduna mom bis bu yàlla defé kilifa dëkk ak yow mu kilifa diine yàlla sutural la nga bok ak mom kanté loolu rek sant la dèjà ziar bi nak nek ziar bo xamante ne nii kenn Jibril Ousmane Daouda bax yàlla nako yàlla. xaare aljana te xam nañ ko yàlla nañu yàlla taas ci barkeem liggéey bi mu liggéeyal yonante bi ak uh, suñu borom subhaanahu wa taala moo waral tey yooyu noonu yëpp di wa wallangaat ba wàcc ci mbokki taalibe yi fépp la nit di jóge contentement la ñu am di dalal nit ñi di wax ne ñun ñëpp suñu xel dal kontaan nañu baax ziar bi mu ngi jàll ci jàmm ak salaam nit ñi jaamu nañ ci yàlla tey ci suba rek jàng nañ euh, kaamil bi ak xatmu bi comme ni ko góor gi daan defee ak dog yi nga xamante ne moom la daan joxe ci njiital xalif bi Thierno Amadou Ba ak porte-parole am Thierno Ba en tout cas di wax ne population commune Bambilor moom du ñu def lu dul di cant ak ngërëm famille bi yëpp di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàggal leen fii ñu yàgg ko feete ndax bi mooy trente et édition bi kon du hasard góor gi li mu liggéey yàlla na ko yàlla defal suuf gën a woyof ci kawam yàlla taas ñu ci barke ndokkeel Thierno Amadou ndokkeel no Malick di ñaan guddi gi ak bis bi yàlla na yàlla teg ko ci loxo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal it tabarakallahu ah, sunu soxna umu tabaarakallaahu ci taxawaay bi moom it di ñaan yàlla nañ ko fi daje déwén ah, indi leen nuyoo it sunu sëriñ ah, sunu kilifa sëriñ moom Abdou xalifa moom Seydil Hadji Thierno radiyallahu anu di ñaan yàlla nañ ko fekk déwén yu bari yàlla na yàlla barkeel gàmm gi te nangu lépp barkeel rajo bi ah, barkeel tele bi yëpp ñu fekke ko te li ngeen ci jublu ci taxaw ngir leeral ak jokkali ci jullit yi mboolem dawaayir yi fi ñëw yëpp ñu nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen yàlla bu mu nekk sunu mujj daje ci barki Seydina Muhammad salaay salaam ndax li tax ñuy bëgg ki mbir mi mooy dañu toog léegi tuuti Cerno Jibi fekk ñu fi kon man damay wax ne Cerno Jibi moo ñëw ndax man ci kër gi mën naa ne kër gi bi am vingt 24 ans laa fi dugg ba am 24 ans laa nekk fii ci kër ceer Cerno Jibi kon yàgg na lool baaba Thierno lu ne lu ne lu ne Baba lu ne jaar na sama diggante ma ak moom te lim ma doon wax démb lu bari dama ko ci gis tey maa ngi koy gis tey tànn ci jamono nitu yàlla nitu yàlla piiri nitu yàlla mooy Baba Thierno Jibril Ousmane Ba yaakaar naa loolu ci wax rek loo ci wax rek da ngay bàyyi lu baree bari ndax ñun ñi yàgg ci kër gi xam nañu thème euh, ren bi nag di yemoog li nga xam ne moom mooy di waxal lu baax ci di seedeel lu baax sa mbokkum jullit mhm. te bu boo gisee ay ayib ci moom nga nëbbal ga ko donc thème boobu noonu tey yow naka nga koy appréhender nan nga di jàngatee boobu la boobu la thème bu ñu war a waxtaanee tey ci ziyaara bi thème bii ren mu nekk actualité bu ànd ak nii jamono di doxe nii aduna di doxe waaye li ci am solo mooy feeñ na li ko feeñal moy jamono bi ñu toll ni ci fan ye ci ginnaaw déggoon ngeen yëngu-yëngu yi waaye kilifa diine yi boo leen déggee seen intervention kaddu gi benn la loolu mooy wane ne yàlla rek moo fi ne loolu mooy wane ne diine rek moo fi ne loolu mooy wane ne fata baarikallaahu Sénégal jàmm rek moo fi am lu yëngu-yëngu commencé dara du mujj lu dul jàmm kon mag ñi yàlla na leen yàlla fay c'est venu à son temps hein parce que boo xoolee Sénégal ni mu bindoo jamono ji ak ni mu tëddee vraiment dañu war a changer jikko yi dañu war a soppi jikko yi dañu war a soppi waxin yi dañu war a soppi doxalin yi kon ñoom bu ñu jëlee thème bu mel noonu ñu ne nañuy wax lu baax tey gis lu bon bañ ko wax loolu nekk na loo xamante ne vraiment ñun rafetlu nañ ko te thème boobu tous les autorités administratives ak ak étatiques rafetlu nañ ko sensibilisation bi ñu ciy def nag mooy yàlla nañu yàlla may ñu am dégg ak topp boo xam ne nii vraiment dinañ gën a suturaal suñu bopp ci wax lu baax mais aussi dañ gën a wodd suñu ay kàddu jëmale ko ci kilifa aada yi ak kilifa diine ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar. dafa ñëw Bambilor yokk Bambilor wàññiwul yoon te ñii mu fi bàyyi tey jii wàccul puso bi mu réer jàpp nañu ba bu baax bu ñu dellusee woon fii dina xam ne toogaayam defar na ba defaraat seen toogaay kon dañuy kontaan rek ndax di ñaan yàlla itam di ko ñaan euh, at yu nekk ñu di ko teewee nii. ñun ba ñu fi commencé di togg booba ñu ne Ceerno gii la ñu woon booba ganaar lañ daan rey mu jóge ñu def xar ba léegi juy def ndax dina géléem kon yëpp ci barkeem ñuy dellu di ko ñaanal di ñaanal nag njabootam